salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taali yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen jox leen seen wàccuwaay baax baax su nuyoo beeg ziar bi ñu ciy jiital asaahibu fadila di ko ñaanal sun borom yàggal ko fi lool sun kanam. Euh, di leen fàttali rek comme ni ñu ko daan defee si émission yu bari muy émission ndaanaan yi émission ndaanaan yi nag tey dafa dalal ndaanaan boo xamante ne Sénégal ñëpp ñoo ngi koy bàyyi xel muy kan sama ndaanaan bii ma dendal muy wala su ko defee rek bala ñoo sori si wax ji dañ koy jox mu nuyoo. kon bisimilah maa ngi lay ziar bu baax kilifa gi. waaw ñu ngi ziar bu wér a wér di leen nuyu di nuyu waa àdduna bépp. di nuyu waa Sénégal. di nuyu waa Touba gi nga xam ne fi leen dëkk. Mm-hmm. ñoo ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaara di leen baalu àq bu baax a baax ci koor gi di leen baal àq di ñaan lépp loo xam ne rek euh, ñu ngi koy waxtaanee mm-hmm. suñ borom kàttanal ñu ci ba lépp li nga ñu laaj rek incha allah ñu tontu ci suñ kéemtu laay kàttan mm-hmm. jërëjëf. ndeysaan mu mel ne euh, ginnaaw bi mu nuyoo euh, jamono ji ñu toll dafa doon ki nga xamante ni macha allah lu am solo. lay def si TikTok bi muy wëla waaw mu mel na jamono ji ñu toll ki nga xamante ne mooy ndaanaan bi nga xam moom lañ dalal tey Euh, ku ko déggul xam nga mu nekk si TikTok bi di def lu am solo ñu leen di fàttali rek ne yéen a ngi ànd ak euh, euh, télé bi nga xamante ne moom la senegal yëpp di bàyyi xel muy vingt 28 pro kon képp koo xamante ne rek yaa ngi seetaan sunu émission nanga daw sa compte ba nga abonné ji su ko defee rek ginnaaw bi nga nuyoo ndeysaan xamal nañu maanaam yaa ngi ndamoo dëkk bi xam xamante ne dafa nga dëkk muy Touba ana maanaam wala fan la fan la débuté maanaam commencement. nu mu def ba dugg si yëf yi ndax ko ne xam na ne jamono ji ñu toll yaa ngi si def lu am solo. waaw yëf yi de daanaka biñ koy commencé sax euh, mën na ne fa lañ ko jëlee woon waaye nag teewut ñun lépp lu ñu dugg rek euh, dañ ci dañ maanaam dañ ciy jàng gëstu ci ba xam ci lu bari. doo ko doo ci jublu ndax euh, yàgg naa donte. un la sax def nañ ko formation ci mbirum théâtre bi nga xam ne ñu ngi ciy yëngu mm-hmm. donte yàq lu ñu woon suñu liggéey ñu ngi ciy doon yëngu bu baax a baax Euh, bi ñu nag ba xam ne daanaka léegi mëntoo ñoo dem ca boolewuñ ci TikTok bi ndax nekk na loo xam ne phénomène la dafa xew. Euh, après ci leen dugg ci biir. Euh, commencé def ay vidéo mu neex gars yi trop wax dëgg yàlla ñu safoo ko ñu ne léegi nañ continuer ci vidéo yooyu noonu loolu moo waral ñu adopté wu ci loolu noonu. waaw mu mel na jamono ji ñu toll ñu si bëri dañ lay bàyyi xel maanaam walla dafa am spécial. ku koy conseil maanaam li muy wax wala ay texte la da koy bind wala nu mu demee noonu. waaw loolu de yaakaar naa ñi koy laaj bëri nañ sax di ko gës waaye euh, àdduna lépp loo ci gis rek euh, dafa laaj maîtrisation maanaam nga maîtriser nga maîtriser li ngay li ngay li ngay def daal. Euh, man nag français Touba laa yoroon nu ma ko sentir rek laa koy waxee dafa laaj nga maîtriser li ngay def mm-hmm. ba tax na duñ sonn lool lool lool ci xalaat yi. tamit bu dee ci wàllum conseil tamit daanaki lu ci ëpp euh, suñu xelu bopp lañ ciy demee mm. malgré que am na ñu nekk ci suuf ñoo xam ne ñu ngi ñuy jàppale bu baax a baax mm. mais bu dee ci cadre vidéo yi moom mm, dañuy toog euh, inspiré wu ci dara xalaat ci daal di jouer loolu noonu mu daal di mu daal di jàll. Mm-hmm. Euh, day toog xalaat ci benn affaire joué ko mu daal di jàll kon suñ jegee sa wax daal maanaam du texte yooyu bind du itam loo xamante ne maanaam euh, looy répété la ak yooyu noonu daal. non non aajowul répétition ndax euh, vidéo bi daa ki gën gaa bëri am benn vidéo bu ñu def boo xam ne mën na. une minute rek distance bi ngay toog ci ngay euh, xalaat aajowul répété ci ngay xalaatee inspiré wu. ci li ngay wax euh, daal di koy daal di koy teg euh, nekkul loo xam ne day euh, compliqué na loolu daal moom. Mm-hmm. parce que soo gisee ma laaj la loolu sax barki démb damaa seetaan sa benn sa benn vidéo nga si wax ne ndaw si ndaw si ma taseeloon keroog tasewaat nañ mu may mu mu naan ma tey la fête de indépendance mais taxi yi nga fa dugal moo doy waar. waaw loolu boo ko gisee tey ñun ñun ñun borom deru ñuul yi. ñu xaw maa baal ci wax ji dañoo xaw a am tuuti complexe complexe bi nag weesuut euh, li nga am ba pare nga dem di ko jigaane ji feneen. Mm-hmm. loolu yaakaar na naa complexe mënu ko weesu euh, bis yi nga xam ne ñun ñu ngi koy jàpp di ci def suñu ay feet. Mm-hmm. yaakaar naa bu ñu xoolee ci suñu culture. Mm-hmm. am na bis buñ ci war a mën a jël ñu def ko pas ñuy jàpp bis bi nga xam ne nasaraan bi moo ko jàpp. di def suñu ay feet ndax même boo demee ba ci diine sax dañ ne la euh, wuuteel lag nasaraan bi maanaam euh, ki ki doonu jullit wuteel ak moom lu muy def maanaam bu awee penku awal soow bu defee lii bu ko ci roy demal nga def leneen nga nga roy ko ci leneen kon ñun comme que euh, dat yaa ngi fi bari na fi lool macha allah euh, suñ mag ñi nga xam ne ñi ngi ci réew mi def fi ay jalooro yoo xam ne war nañoo mën a jël ci dat noonu wax dëgg yàlla di ci def suñu ay feet mais pas ñu jël ci dat yi nga xam ne wax dëgg yàlla koo toogoon tey laaj ko sax ne ko nangam lii lan moo ko waral du la ko wax moom gis na nit ñi riiranoo di feetu rek muy feetu loolu war nañ cee mën a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax. léegi yow euh, feetu indépendance boobu ci kaw wax ji nga ko wax maanaam ñun nee nga ñun am nañ culture am nañ fu ñu war a sukkandiku am nañ itam ay mag ñoo xam ne def nañ fi ay jaloore léegi ndaw si maanaam tontu boobu nga tontu boobu nga ko tontu ci kaw culture boobu ñan nga yaakaar ne maanaam yow maanaam ñoom ñoom ñoo waral vidéo boobu noonu parce que. dégg naa si ngay am looy junj. Mm-hmm. waaw vidéo bi day euh, mën naa ne li ko waral bokk na ci tey mm-hmm. euh, malgré que maa ngi wax ak ndaw si mais maa ngi waxaaleeg ñi nga xam ne ba comme ni mu wax naa ko sànq sama biir wax ñi nga xam ne fonk ñu seen aada fonkuñu seen cosaan ndax tey mm-hmm. bu dee indépendance rek wax dëgg yàlla ci dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg man jàpp naa ne ni ma ko waxee loolu laa gëm jàpp naa ne man bi Cheikhul Khadim jugee ci géej ñun lan amoon indépendance. ndax euh, bi bi ñëw. Euh, fekk na daanaka wax dëgg yàlla fépp nooy nepp bu dee dëgg rek la ñuy wax fekk na fépp nooy nepp daanaka kenn yëngalatut. Mhm. biñ ñëwee tamit moom ñu yóbbu ko mu dem demul ngir boppam bu doon ngir boppam rek yaakaar naa. du aajoo muy dem mais dafa dem ngir ñun maanaam mu demaa demaaleel ñu liggéeyee la waaleel ñu. Mhm. tamit loolu fële que ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax. Mhm. kon kooku bu fekkee ne ñibbisi na euh, mu nekk ak tubaab bi ab diir. ci géej gi. Euh, ñu ko lañ ko doon tere mu koy def moom moom si Cheikh Amadou Bamba bàyyiwu ko ba ni muy ñibbisiwaatee ci biir réewam indaale ndam lu bari ah ci koo xam ne bi ngay dem ci nga ne santale leen ma yàlla bi ngay dem kon kooku xam na ne bu ñëw victoire rek indaale kooku bu ñëwee yaakaar naa bu nee ba nga xam ne ca dëgg-dëgg ñu ngi jàpp maanaam euh, maanaam feetu indépendance muy bis bi nga xam ne ñun ci leen amee liberté man jàpp naa ne kon bis boobu la war a doon ndax bu demu doon kat comme ni ma ko waxee ci vidéo bi yaakaar naa kuus ay tubaab la yendoo de ak di leen boot ak di mapp mbappe ca wax dëgg lu ñu ci gis benn njëriñ wax dëgg te man fetu indépendance bi pour mu waxaat ko man jàpp naa ne ci wax la kepp ci la yam mm. waaye tey euh, jàpp naa man colonisation ba léegi jóge ndax yow même sa constitution sax maanaam day de loxob mi ngi ne lëj ji ci biir nga xam ne yow amoo droit sax yow maanaam di di xool sa culture li li méngoo constitution bi maanaam ak sa culture nga def ko ñoom amuñu amuñu amuñu droit sans kon ba léegi man maanaam mbirum indépendance bi kon man ci fan la ñun fan la ñu amee indépendance laaj boobu maa ngi koy posé man ku ma ci mën a dimbali maanaam nga dimbali ma ci côté boobu noonu ndax lu ma jaaxal la neen na laaj boobu moo ngi koy posé képp koo xamante ne mën nga kaa dimbali nga dimbali ko si laaj boobu noonu si commentaire yi euh, ginnaaw loolu itam am na lu ñu la bëggoon a laaj lu ndaw rek mooy maanaam euh, wala maanaam euh, wàllum TikTok da nga doon foowantoo dugal vidéo mu jàll wa ilaa dafa jëloon décision bi ak ak maam ban ban vidéo nga njëkk dugal ban vidéo nga njëkk a dugal rek affaire yi tàkk. waaw ak si fi mu ak si. waaw ci bu dee ci cadre TikTok bi am na yenn vidéo yu njëkk doon doon doon joué. ñu tuddee woon ko Jikkoy Donga Daara. Jikkoy Donga Daara waaw ñu ko doon joué maak sama benn waay bu tudd Cheikh ñu ñu ñu ñu ko doon joué léegi. mais dama toog benn bis ma toog man à chaque fois fu ma toog sama xel maa ngi inspiré wu ci dara ma toog ma ne ma xalaat ci ne maanaam dibiteer yi. Euh, man damay seetlu bi ma delee seetlu ba léegi gis naa ne saa yu la jaayee maanaam yàpp ci kayitu ciment la koy defal. ma xalaat ne waa lii lii faw mu wax ko ma toog di ko fawantoo noonu rek daa def benn vidéo daan ne xam naa 1960 ba léegi soo jënee dibi ci kayitu ciment la ko defal loolu war nañ cee wax. après ma dugal ko ma gis que ne mi ngi am ay ay ay vie ndànk-ndànk. ma xool na tamit euh, méthode bi ma koy waxee. Mhm. maanaam intéressé na gars yi. Mhm. après ci laa jëlee voix boobu ma continué ko ba tey jii wax dëgg yàlla macha allah gars yi ñu ngi koy ñu ngi koy bëggee bu baax a baax. maanaam daal suñ déggee sax vidéo débiteur bi moom nga njëkk dugal daal si vidéo léegi moom nga dugal rek affaire yi. exploité nga daal di continuer. voilà moom laa njëkk dugal après moom moo ko bi may waxee mayga yi nekk janatu. Mhm. ñaari yooyu noonu moom laa joué noo. Euh, même place. Euh, ma joué ñaari yooyu noonu. après ci laa ko dugalee tamit ma gis ki ne mi nga am ay vie après ci laa continuer eh, di di di di di jouer vidéo yi daal. Mm-hmm. ndeysaan ñoo ko déggandoo li mu wax ndeysaan am na solo lool kon yaakaar nañ ne euh, kii nga xam moom la ñu invité tey si émission ndaanaan yi muy wala euh, ndeysaan jàmbaar la te suñ déggee wax ji yàgg naa théâtre kon dèjà vidéo boobu nga xam ne moom la dugaloon muy may ga ba moom moo ko moom moo ko may lu bëree bari bari mais bi ko dugalee itam taxul mu découragé. continué na topp action ba yàlla dogal tey mu agsi fii ndax jamono ji ñu toll wax dëgg yàlla moo ngi si def lu am solo te lépp lu wax mooy bégal nit ñi euh, ci kaw loolu itam euh, dañ laa buggoon laaj benn question maanaam euh, affaire bi maam wàllum théâtre avant ngay dugg si TikTok ba si agsi fii maam xa maam daan ngi si ay jafe-jafe yu métteeg yooyu noonu daal. waaw jafe-jafe yi doy waar sax ndax. suñu way jur wu góor wi nga xam ne euh, moo ñu meññ maanaam euh, xañ na euh, xamu doon dëgg dëgg dëgg lii maanaam ay théâtre ak yoonoon ba tax na même répétition sax bu ñu fa dem dañ daan nëbbu naan ay dañuy jàngi affaire yoonoon lépp rek ngir bëgg aar bi moo waral ñu daan dem daan def loolu noonu daan sacrifier suñ dund waaye wax dëgg yàlla jaar nañ ci jaar-jaar yu métti wax dëgg yàlla heure bu nekk daanaka maanaam fu ñu dégg spect fu spectacle xew dana fa dem mm-hmm. du xool li yi def ba xam euh, danañ ci jàngee mm-hmm. tamit di toog di concentré wu ci gars yi nga xam ne ñoo ci ëpp xam-xam ak di laaj lu ne di dem di gëstu lu ne tamit ñu ngi ko doon def bu baax a baax yàlla mm-hmm. waaw xam naa daal loolu jot nañ ko ci kii moom. kon daal suñu dégloo wala daal ci ay waxam maanaam euh, comédie bi yàgg na ci moom maam yàgg na kaa suivre daal. du defa tëb tëb rek dugg si. waaw euh, comédie bi ni mu ñu duggee. Mm-hmm. jamono yi nekk école daan jàng nekk ay gone yu ndaw bu ñuy wàcc bu ñu di def ay fête Euh, bu masaan def fee dana nga xam ne mag ñi ndeysaan ak maire ñëpp dañu toog di ñu xaar fekk joué wuñ duñ dem ngir cofeel gu ñu amoon ci ñun après ci la benn waaye ne ma pourtant yow boo demoon def ay formation théâtre ak yooyu noonu mën nga mën nga cee génn ma ne baax na après ci laa dem benn troupe bu ñuy wax jàmm xéwal jamono jooju moo nekkoon Madiana daanaka moo fa tegoon tànk ci lañ demoon doon fa defee ay formation euh, xeet yooyu noonu mm-hmm. euh, après biñ ci génnee jotu nañoo sos suñ turum bopp mm-hmm. ba euh, ba mu dem ay ay ay at. Hmm. mais finalement. ñenn ñi sëyi ñenn ñi tamit dem ba affaire yi seen jot mëteetu ko. Hmm. waaw loolu waraloon ñu arrêté ñu arrêté maanaam yooyu nga xam ne mooy répétition yeeg yooyu noonu. te ji booy xool daanaki euh, côté comme ni nga ko waxee côté TikTok bi ak yu demee ni ay YouTube côté boobu noonu ci la nit ñi gën di vocaliser sax ci ay ay téléfilm ak yooyu noonu. Hmm. loolu waral ñu kii ci wàll woo noonu. ndeysaan ñoo ko déggandoo euh, jamono ji ñi toll. Euh, wàllum TikTok ak wàllum YouTube si la nit ñi gën a gën a concentré wu moo tax ñaareel lu si bëri lu mu si def itam si la koy def euh, wala bëggoon nañ maanaam comme euh, nu mu tuddati may ga boobu noonu nga mayaat ñu ko maanaam kii noonu man affaire boobu daf maa neex lool. ci kii bi dibiteeri bi. waaw dibiteeri bi moom boo xoolee xam nga tamit ma ma ma ma occasion am lu ma leeralaale. Mm. am vidéo yi ñuy def ñun bépp vidéo bu ñu def tamit. xaj na mën na koo xool am ay quelques kii yoo ci corrigé waaye dañ ci corrigé lu bari boo xoolee ñu ne ñu ne ñu ne da xam naa li may waaj wax du moom waa gouvernement bi war na cee jóg. man xam moom Macky Sall war na cee jóg de moom xam naa gouvernement ci war a jóg de moom xam naa xam naa 1960 ba léegi de moom boo jëndee moom xam naa ci këyit semence dong la ñu ko defal de moom xam naa war nañoo ñu ci rax ñu ci def de moom xam naa moom. xam naa war nañoo ñu ko def di moom xam naa moom. loolu boo Euh, euh, lu euh, kilo bi yàpp bu dibi bu dibi bi mi ngi jaar junni junni. junni ku ne xam ne waaw junni ci xam ku ne xam ne junni yombut da nga kër kër dugg fu nekk doogu amul junni. Mm-hmm. te bu yàlla wala nga lem sab junni. ah dem ci bibitéer nag ko du wax dëgg yàlla bu lay jaay war naa mën a xool fu présentable. Euh, tamit donte mbuus la sax mu yebal la ko ca waaye tamit joxub junni lawal ga sax léeg lakk ba du ñor léeg-léeg meerub xaar la ñuy rey euh, euh, lakk ndawal ga ndawal ga du ñor day dëggër lool daanaka mën ngaa jàpp taaw yu ñor di suñ bi mel na koy lekk aw dàll tamit day xaw a day xaw a dewaar tamit soble dong la ñuy def war nañ cee man di rax pomme de yeneen tamit ñama-ñama yi ci biir mu xaw a présentable waaye ñun ñun suñ jëm bopp ñun ñoo jéemut a avancé boo bëggee dégg-dëgg fi mu toll nii loolu yëmu ci cadre dibi dong fi mu am na am na yeneen ak yeneen yoo xam ne boo xoolee. fañ ca yàlla xam na ne fañ ca nekkoon 1960 ba léegi lañ ci nekk. ba léegi rek fi ma toog nii mën naa la ci leeral yu bari wax yu bari yoo xam ne. dara du ko dindi 1960 googu ma la wax ba léegi. loolu lañuy ñuy dund. te pourtant loolu war nañ cee mën a jug bu baax a baax a baax. Euh, man de vidéo mu nga wax damaa dugg ci commentaire yi mais damay gis gars yi gars maam ku si du ku si dugg rek danaan wax nga dëgg wala lu leer ba dama gis sax euh, barki démb Diofal. jël si euh, jël vidéo boobu noonu moo nekk ak vidéo am. waaw nga xam ne dèjà maanaam ñu si bari maam maam dañ kaa dëggal 1960 ba léegi maam kuñ si jaay dibi si kayitu ciment lañ la koy defal. pourquoi ça maanaam ki lay jaay dibi nga xam ne maanaam valeur bu 5000 nga ko jënd comme ni nga ko waxee. mu tegal la ko fu fu loolu nag la gars yi naan maam lu lu war a mën a dañ la si jamono ji moo tax maanaam euh, affaire bi am na comédie waaye si kaw comédie itam maanaam yaa ngi si yaa ngi si yeetewaale yaa ngi yaa ngi si wax lu am solo daal xuma ba xam yow yaa ngi bàyyi xel loolu. waaw comme ni ma ko waxee rek fi mu toll bépp vidéo boo xam ne def nañ ko defuñu ko rek ngir comédie nit ñi di reetaan mais lépp lu ñu def boo xoolee ba ci biir maanaam euh, dëgg la am na comédie waaye dañ ci jàngalewaale ak vidéo ma vidéo yi ñu def yëpp nag amul benn bu ma bàyyi bépp boo xam def nañ ko ci rek ñi ngi ci am benn message boo xam ne ñu ngi ko ci lancé waale pour nit ñi di ko bàyyi xel ndax dëgg la reetaan yi am na solo waaye tamit eh, nga wax lu am. importance nit ñi pour que léegi nga mën leen a convaincre ci dara tey boo ñëwee wax ne ñu fas sa kanam eh, ñi lay seetaan du bari waaye tey bu fekkee ne yaa ngi wax di leen reetaan loo eh, kii ay reetaan ñor dina ree ki tamit yeewu ñor dina ubbeeku ci li ngay wax ba tamit xelam xelam dikk ndax boo xoolee comme noonu nga commentaire boo ci duggee. bépp vidéo bu ma def da da ngay dégg da ngay dégg gis ko commentaire daane pourtant mi ngi lancé waale message yu am solo ci biir di leen ko bàyyi xel ndax nee na nangam ak nangam ak nangam ci biir vidéo bi loolu tamit dañ koy bàyyi waale xel bu baax di di di liggéey ci côté boobu bu baax a baax bépp vidéo bu ñu def daal boo ko téyee décortiquer ko jàng ci bu baax a baax di nga gis que ni eh, ñi ngi lancé waale ci biir message ndax loolu rek moo am solo euh, loolu sax dama koy dëggal parce que am na si vidéo bi nga bi nga doon tourné si singom bi boobu itam wax nga si lu am solo te loolu yaakaar naa su ma juumul suñ mbokki jigéen ñu ñoo ko moom ndax ku ne xam na ne jigéen dafa am valeur si jamono jii ñu toll kon dèjà am na loo xamante ne tey maanaam vidéo si bi suñ ko seetaanee dañ leen jàngal lu bari foofu itam li nga fi doon wax bëgg nañ nga leeral ñu ko. waaw xam nga ci cadre euh, vidéo si bi tey euh, wax naa ci lancé am na ñaari message yoo xam ne lancé naa ko tey ñu bëri boo ne la woon ban matière lañ defaree si ngom xamuñu ko. Hmm. xamuñu ban matière lañ ko defee da ngay gis muy taawee ko comme ni nga ko waxee xaw ma élastique lañ ko defee euh, bi des euh, ma ne jigéen ñi war nañoo yeewu ndax boo jëndee si ba sàq ko ba ba ba mu sàpp koy sànni dem wër ji beneen si boo sàq mi c'est-à-dire que mooy euh, jigéen gi nga xam ne yow yaa ngi nekk góor tey mun naa la ay xam nga ñu na ma ko yàlla jégal sama mbokk góor yi dañoo xaw neexu làmmiñ ay dama lay takk. nangam ak nangam waaye léegi ki lay dig takk ba pare à chaque fois comme ni ma waxee ci vidéo mi bëgg di sàq mi maanaam muy bëgg di séq ak yow chaque jour di séq ak yow ba pare di di la dig ak takk war ngaa mën a xam ne bëggulaa takk bis ndax euh, exemple laa lay jox rek yow mii doo dem fekk singoom ci bun sànni ci suuf nga for ko di di di di sàq mi wéy doo ko def moom itam du ma fekk singoom bun sànni ci mbedd mi ba mu utiliser ko ba pare ma koy sàq mi du ma ko def damay dem ci bitig ba jënd singoom bees taq da dajjil sama bopp di ŋàjji ŋàjji na ñëpp kon Euh, war nañoo yeewu ci côté boobu ñu jàng ci góor gi nga nekkal ndax góor fi mu doon ni bu la bëggee ci ay kaw ni muy waxee ak yow ak ni muy jëfee yow ci nga xam ne kii bëgg na la mm-hmm. wala wala bëgg waaye góor goo xam ne à chaque fois buy wax ak yow mi ngi wax ak yow ci cadre nu mu nu mu sa xel di ko jëmale ci wàllu maanaam. ay ay affaire sexuelle ak yooyu noonu. nga xam ne moom bëggu daal lu bëtt caax yi daal comme ni ko gën waxee maanaam euh, bëtt caax yi. Euh, maanaam fee na max day daal di am bu baax a baax a baax. Euh, kon su ko defee rek ngeen bàyyi xel ne yéen a ngi ànd ak télé bi nga xam ne ndeysaan Sénégal yëpp moom la ñuy bàyyi xel muy 28 pro. Euh, su ko defee rek ndeysaan si kaw loolu itam ma ànd ak sama jinne cameraman muy euh, Seydina Omar euh, ànd ak sëñ Fallou ndeysaan ak gars yu baax yi yi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo ngi si ginnaaw maanaam dañoo nekk si fin de émission bi mais dafa am ñaari question yoo xam ne moom laal la bëgg a posé maanaam wala jamono ji ñuy toll lan mooy ay projet bala ñoo tëj. waaw bu dee ci cadre projet moom wala comme ni ma ko waxee léegi rek man li ma am mooy di inspir wu ci dara xalaat dara jeu ay vidéo mais bu dee ci cadre euh, projet yu jëm ci yooyu am na ñeneen ñoo xam ne ci ñoom la nekk seen loxo tey man waaw am na ay am nañ ay ménagères yoo xam ne wax dëgg yàlla ñu xarañ ci wàllu woowu bu baax a a baax ñoom côté boobu tey fu fépp foo xam ne maam projet yu ñu war defa def yëpp ñoom ci loolu lañ aju man li ma li ma war rek mooy di inspiré wu ci dara di jouer ay vidéo mm, euh, di leen envoyé ñoom ñuy dugal tey euh, bin bin créé YouTube bi ma am lu ma leeral foofu noonu. ñu bari ñu naan da ngaa teel a dem YouTube ay TikTok ne la xamee affaire yooyu noonu mais faaw ñu bàyyi xel ci ne euh, wala du wala personnel mooy mooy maanaam moo yor mbir mi déedéet man li mu ci am mooy ju mooy joué mais dafa am ñoo xam ne spécial ci cadre boobu noonu ci ay. voilà luy jëm ci ay YouTube. wala ay ay dugal vidéo yooyu ñoom ñoo ko yor. man euh, sañu ma. ñu ma daggu vidéo sañu ma caa ñoom ñoo yor wàll woo noonu ndax euh, nit koo gis rek dafa am loo xam ne moom moo ko yor. voilà léegi côté boobu moom loolu laa ci loolu laa ci tàggatoo. wala lan lay tàggatoo ak lan lay wax ay fan sam su ko defee ñu daal tëj. waaw euh, li may tàggatoo de mooy di sant ñëpp wax dëgg yàlla di gërëm ñëpp. ndax fa tabaarakallaahu euh, euh, xaj na biñ commencé ci yëf yi yàggut waaye nit ñi safoon nañ ñu nañ ñu gis na nit ñu bëggee gis na tamit nit ñuy bàyyi xel bu baax a baax a baax. yow tamit maa ngi lay jaajëfal bu baax ci dalal gi bu baax tamit di questions yi tamit wax dëgg yàlla leer na tey it tegu na ci ay teggin wax dëgg yàlla. Euh, maa ngi nuyu bu baax a baax euh, ñi nga xam ne ñoon laa àndal bi may ñëw Modou Modou Touré euh, di sama ménageur maa ngi koy nuyu bu baax ak Baye Góor gi sama rakk moom tamit moom laa àndal bi may ñëw maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu tamit gaa yi nga xam ne ñoo doon jàpp ci liggéey bi wax dëgg yàlla vingt 28 pro macha allah waxuma dara mais boo ñëwee nañ lay accueillir rek ak ni lay dalee dalalee ndeysaan dana laaj tamit ci ay teg xam tey Euh, journaliste dafa nekk métier moo xam ne faaw nga maîtriser ko tey euh, ki nga woo di ko laaj amanoo ko laaj sax far moom du tontu ndax gis nga yenn yenn loqutu yi boo ko laajee ni sax wax dëgg yàlla du la du bu bu la bëggoon a tontu sax du la tontu. kon wax dëgg yàlla ñu ngi leen sant bu baax di leen jaajëfal di leen gërëm bu baax baax lépp loo xam ne juum nañ ko ci moo xam muy ci vidéo yi ñu jot a def ak yëpp. ak ci émission bi ñoo ngi koy jéglu bu baax di xam ne nit moo matut waaye buñ sañoon dañuy wax lu jub lu ci dëng lu ci jub ñu xam ne suñ borom moo ko dogalee noonu ñoo ngi ko koy sante bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa jëf euh, sant nañ la gërëm nañ la si maanaam euh, yombal gi nga yombal ndax yàlla xam na ne jamono ji ñu toll jot amut su ko defee rek sama gars yi dañuy tàggatoo foofu ngeen xam ne jamono ji ñu toll ndeysaan émission bi émission ndaanaan yi la tey nag ñu dalal loon si ndaanaan bi nga xam te ne saan ñëpp ñoo koy bàyyi xel euh, di ziar comme ni ma ko waxee woon sànq rek sama jinne cameraman yeeg gars yi nga xam ne ñoom ñëpp laa àndal di seen wàcc waay baa wax di leen wax nag dem leen abonné ji sa compte ba kon sama gars yi ñu xaaraat beneen émission jërë ngeen jëf